yal na nga mën déwén lu ko ëpp. barke sëñ man ak man yaa si lii xewal la boo xam ne nii tey dafa naan doomi askan bi moo ko def. mu nekk askan bi. léegi maram ba nga xamante yàgg la mais si biir waxtaan si biir communication xam naa ni wala ñaaw nañ jox ko ne bu baax la. Euh, bëgg famille am la. bëgg askanam ndax lii tey ku bëgg askanam rek wala ku bëgg njabootam rek moo koy def ngir njaboot rek lii ne dakaa def te xaaru si ñaari dërëm dakaa def te yàlla tax pour dimbali askanam si dimbali population de Mbao donc en collaboration avec euh, El Hadj Mboup ñoo doon corona ak Talla Mbaye pour activité yu bagage yi nga xam ne ni tey mu ñëw asan nag muy nii donc ñu ko ne doomi askan gi la mm-hmm. ñu lay ñaanal asan lépp loo xam def nga ko yàlla nga def loo xam ne lu ëpp lu ëpp donc dina ñaanal gudd fan yow ak sa njaboot yow ak sa famille en tout cas li c'est une fierté pour ñun am ñu bëri ñoo xam ne mën nañ ko waaye defuñ ko donc bu ñu gisee koo xam ne def na ko tey suñu sawarte la suñu askan bi la en tout cas personnel bi nga xam ne moo fi nekk tey sage-femme bi nekk nii nga xam ne moo jiite sage-femme nga xam ne ne jiite infirmerie bi donc ñu leen di gërëm di leen sant ndax lii tey matériel la boo xam ne tey dañ ko naroon a jënd te buñ ko jëndoon duñ ko jaay askan bi dañ leen ko may ndax table consultation tey boo ko naroon jënd yaa ngi def ay 300000 benn boîte gant boîte gaan rek yaa ngi ko jëndee à 50 mille francs donc li nekk na loo xam ne lu am njëriñ la te ñëw na fi nga xam ne foofu la war a ñëwee donc vraiment ñu lay gën la sant di jox Talla Mbaye mi nga xam ne mooy jiite comité de santé bi mu am si ay kàddu yu si yu si sànni. jërëjëf. mbooloo mi ñu leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant euh, di wax ne dëgg ci nañu euh, kontaan nañu parce que loolu rek lañ mën wax émotion ñu suñu ndax ba dañuy wax ne doomu parce que. bu ñu nee jarbaatu euh, kii El Hadj Mbuub la kooku yaakaar naa ne man sama doomu ndey la parce que El Hadj Mbuub sama nijaay la waaw monsieur Mbuub aussi noonu lañ fi nekkee woon ak moom kon nag bu ñu demee ba ñi nga xam ne bokk nañ ci ñoom jël matériel bu toll nii indi ko ci euh, poste de santé bu Maabo mu fekk yàlla def ñu nekk ci loo xamante ni ñoo ñoo fi teewal askan bi jiite euh, kii boobu ñuy wax CDS kon ñu def rek lañ am dina am mbégte boobu nag mbégte mënul romb mbégte bëgg nañu lool ba fi bëgg yàlla comme ñoo représenté askan bi aussi mën nañu wax ne askan bi kontaan nañ ci lii trop trop trop trop su loolu weesoon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant parce que am na ñu ko mën ñu leen ko gën a mën njëkk leen fi te defuñ ko kon nag nit bu defee lu baax dañ ko war a wax ba ñëpp xam ko kan fu soobee yàlla askanu bu yëpp dinañ xam ne tey yéen indi ngeen lii ci poste de santé bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal aussi lépp lu ngeen xam ne nii tey mën ngeen ko ren bu déwénee yàlla ngeen man double bi ba mën di fi indi leneen loo xamante ne nii euh, dina romb li si si si si si si si yàlla ñu ngi leen di gërëm encore une fois di wax ne vraiment man de wax dëgg yàlla mosuma gis lu mel nii parce que nim nim demee bàyyi bëkkëri mbay ci moom la jaar xam naa boobu ñoom yooyu sama numéro bàyyi bëkkëri waaw moo ko woo téléphone na ma sa sa yaay yaas moom moo moo moo lay woo. jox ma numéro bi moom woo ko fekk instant boobu mu ngi jokkoo xam ne ak yaay alaaj bi mu paree laa ko woo jot ko nga expliqué na ma ne wax naa alaaj moom lépp. bi ñu paree ñu jokkoo ak alaaj yi ci tàkkusaan googu noonu lañ ñëw daje fii si bureau euh, kii bureau Diop. fekkoon na fi Denis doomu bàyyi bàyyi Boniface bi man ak Diop nii ak tonton El Hadj bu ñu ko wooyee dam te léegi wax leen lu ngeen bëgg si saa si ñu defar ak kayit bi. envoyé ko par mail mu jot ko bi ñu ko jotee aussi Owaat Diop waxu na ko jot naa seen këy li ngeen bëgg li fi am bu soobee yàlla dana ñëw te noonu la demee loolu moo ñëw même lii matul une semaine waxtaan lii ba bagage bi ni muy yegsee fii maa ba tey matul une semaine El Hadj Mbow aussi ñu ngi koy gërëm ndax am na bagage boo xam ne muy ñaari lal yi dafa desoon dakaar ñu waroon ko jëli ñun ñoo waroon a dem ak suñu ambulance mais panne tam ñu si diggante bi muy problème mu frein yoo xamante ne nii moo ko oto bi demul mënul dem Dakar wóoruwuñ ko le temps koy defar fi la alaaji bu volontaire jël paas dem Dakar jël lal yi démb amul luñ ci dajut chauffeur bi bu ñu leen lal yi lu xaalis bu bëri la ci teg ñu jàppalante ñun ñëpp ba fexe ba jot ci nii nii kon daal vraiment ñi ngi gërëm ñëpp yaay booy ñu lay gërëm bu baax di la sant